bismillahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mboole mañ moo nooree ni ñu ngi leen di baax di leen ziare di jiital ñu nuyu bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi loolu te ànd ko wér di nuyu mboolem kuy topp mañ moo nooree ni TV ci seen émission jaalibatul buruur ngeen koy ànd ak seen mbokkum bi Zeyd Ba di nuyu baax tamit Serigne Baara mi nga xam ne moo nekk ci caméra bi di nuyu baax Serigne Maguette Wade mi nga xam ni moom lañu fas yéene dalal tey ci émission bi kon xam naa moom dañ koy jox mu nuyoo rek bu ko defee après dinañu jëm ci li ci des bu soobee yàlla bisimilah. aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salaatullahi wasalaamu ala seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu waaleykum salaam sëriñ Saïd ñoo ngi lay nuyu di nuyu sëriñ sëñ Baara di ko sant ci taxawaay bi leen sant yéen ñëpp leen gërëm di fas yéene rek def lu gàtt rek ci waxtaan ci li ngeen yittewoo ñu waxtaan ci muy loo xamante ni yaakaar nañu dina war a yitteel ndaw ñi fa jazakumullahu xayran ok jërëjëf oustaz sëñ Maguette Wade euh, ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ko présenté mbooloo mi di leen xamal ni <coughs> day boroom xam-xam bu mag koo xamante ni xëy na day li ci bari day day nëbbatu nag daanaka def def ab liggéey bu rëy rëy rëy ci lislaam ak ci yoonu murit doon koo xam ni kaatib la di baaxis di muhaddis maanaam écrivain la bindkat la gëstukat la yi la waaye mel na ni xëy na ab liggéeyam lu baree baree bari daanaka bëggul sax di ci fës moo tax euh, waxtaan wi sax ñun ñoo ko sàkku ci moom bu baax moo tax ñu fekk si ko tey ji mu def ab liggéey bu rëy tamit ci euh, wàllum xaside ci mbindum xasida ak ci jàngale xam ci mboolem langue yu baree baree bari rubbama yaxat yatakallamu an arba'i lugat daanaka bari na langue yu bari moom mi suñ màggel war di da koy da koy wax muy arab français anglais ak italien te yaakaar naa loolu lu maanaam yitte ju kawe rek moo ko mën a may te bind na ci tamit ay livre bind na ci ay téere yu bari maa ngi fàttaliku bi ñuy nekk Azhar bi ñuy def yaakaar naa bi ñuy def euh, sixième la xuma cinquième suñu programme anglais bi ñu daan jàng muy Azhar euh, am na livre boo xamante ni anglais la anglais arabe la dafa bokkoon suñu programme de biñ ñëwee ba gëstu ci lañ xam ne moom mii moo ko moo ko bind te yaakaar naa toogul fenn di ko wax wala mu koy wane kon loolu mel na ni liggéeyam bi la koy def ngir jëmmi yàlla ak liggéeyal ci suñ tuwaa kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko taw tawfeex baax a baax looloo taxoon nag tey ñu sàkkoon waxtaan wi ci moom xëy na waxtaan wi dañ koy tënk ci ñetti point point bu njëkk bi mooy dinañu waxtaanal ci taarixul xasaayidi wa awaan intishaarihi fi Sénégal wal xaarij mooy histoire xaside yi xaside yi fi muy bi muy doog a door fi mu commencé ak ni mu wesaaroo ci réew mi ak bitim réew ndax ku ne umpale woon ni moom mi euh, ku yaatal mbindum xasida la ci bitim réew ñaareelu point bi dinañu waxal ci euh, al muridiya awalu al ams wal yow maanaam yoonu murid wi fi bi muy doog a tàmbali ak démb maam démb ni mu meloon ak tey jii fi mu àgg mel na ne loolu tamit ñu sama genre gi nga xam ne ay tuut tànk lañ yu ci bari dañ koo umpale boo yër maanaam histoire téere yi nga xam dañuy bind ci yoonu murid doo doo ci fekk xeetu waxtaan yooyu ñetteelu point bi mooy dinañ waxtaanal ilaqatu ma Cheikh Saliou Touré moom mii ko am relation la ak Serigne Saliou Touré te mel na ni mbooloo Majmahun Nurayni loolu di leen gën a yitteel baax ñu gën a xam kan mooy Serigne Saliou Touré ak relation bi mu am kon xam naa dañuy ñëw ci suñ point bu njëkk bi rek sëriñ Oustaz Maguette waad bu ko defee mooy euh, taarixul xasaayidi wa an shari fi Sénégal wal xaarij tafadal euh, asalaamaaleykum sëriñ Saïd ñoo ngi ziar bu baax ci présentation bi ak wax yu am solo yi nga xam ni wax nga ko mu jëm ci suñ jëm xam naa loolu moom baax nga lool xam-xam borom xam-xam mag moom jafe na lool waaye ñu góorgóorlu rek eh, Maodo wax yi nga xamante ni moom nga wax fii eh, bu njëkk bi eh, lu am solo la xasiida yi taarixam maanaam tasaaroom ci réew mi lañ bëgg a wax kañ la tasaaroo ak yan ñooy jamono yi nga xamante ni xasida amul woon xasida ci jamonoy Serigne Abdoul Ahad Mbacke la tasaaroo. ñun bi ñu nekkee xale di jàng fii ci Looyeen booba xaside yi ñu doon jàngal. xaside gañ ko bind mu ngi tuddoon majmu majmuatun taxtawi ala iddati xasaayid noonu laa nga mën a waxee. xaside yi ci nekkoon. xaside gu ñu moole woon la ci yoon wi sax nag. Mm-hmm. waaye. mbind ma ci nekkoon tam niru na ak mbind mi ñu bind Masaalikul Jinaan mhm. mbind yu mel noonu exact la wante xasida yi bari ci nekkoon mhm. ay allah min kulli karimin ali yumnu mhm. lin bi tawaaduin ak uh, wasaynaal insaani bi waalidayhi yooyu lañ jële jël dajale woon ko ci bariwul woon noonu booba xasida bariwul mag moo gis mbindum loxo lay yor li ci ëpp mbindum loxo moo xam dañ ko bind ci daa wala nga gis mag moo xamante ni du yor comme nii doll amee mhm. amul woon mhm. dañu daan yor seeni xaside rek mhm. takk ko ci buum te daawul bari noonu sax amoon na itam nag bi ñëwee ba ci 78 amoon na genn xaside gu mag boo xamante ni waroon naa ma 30 sur 20 bu fi nekkoon boo xamante ni dàmbe woon na euh, xaside yii lu mel ni jës bu mooy bu xaadimaat leneen ci ay xaside yu gàtt gàttaan xaside googu bari woon na fi waaye li ma bëgg a wax mooy on peut dire que dans les années soixante. Mm-hmm. ba soixante dix. man nga wax ni boo demee Touba doo gis kanting buy jaay xasida mm, Touba waaw boo ko demee dafa gis kanting bu yor ay xasida comme léegi. Mm-hmm. di ko wecceeku. Mm-hmm. am na si yoo xamante ni sax nag du lu ñuy wax ci kaw. ci ay micro. ndax yoon wi li may faral di wax nii. dafa barkeel wër àddina bi mhm. wante yàggagul mhm. yàggagul yoonu mu murit yàggagul mhm. lislaam ji ci Sénégal sax ngay wax en général bul dem sax ci ay Thierno Souleymane Baal jëm ci mag ñooñu sëñ pireg ñu mais tàmbalee rek ci sëñ Touba Alaaji Maalik sëñ Ibrahima Niass nangam nangam loolu noonu yàggul lool yàggul lool sëriñ bu mag bi mu muy jaar fii di dem ci géej gi 1895 la hum mille 1890 cent habitants ñoo amoon fii habitants ñoo amoon fii Thiès 1200 habitants. 1200 ah 1200 habitants te tubaab yi bokkoon nañ ci ak leneen ak leneen ku dugg ci archive yi da gis damay wax. Hmm. kon yoon wi yàggul. Hmm. souvent dinaay laaj xale yi bi sëñ bi làqoo ak bi ma ganee àdduna ñaata la ñu lay wax téeméeri at ma leen matu ko. matagu ko ñun moom bi mu làqoo. lu néew la waaw sëñ tubaab bi mu làqoo ak man bi ma ganee àdduna 27 ans la 27 ans. Hmm. suñu waay ji ah parce que 54 laa judd. suñ baa ngi làqu 27. 1927 ba 54 <laughs> loolu 27 ans rek la bariwul. Hmm. kon jamono yi nga xamante ni ñun ñoo gën a àdduna suñuy waajur ñoo toll woon ci at yooyu ñoom ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo juddoon ay 27 ki 30 ki 20 ki yooyu mag ñi. Hmm. jamono yooyu lañ juddu ñenn ñi gis nañu sëñ Tuubaa ñenn ñi ginnaaw sëñ Tuubaa lañ ñëw. ñenn ñi judd nañu ba noppi sëñ gàn nañu àdduna sëñ Tuubaa door a ñëw yu mel noonu door door a làqu. kon yoon wi yàggul. boo duggee ci aussi jamono yii ma la wax ni la dans les années 60 ba 70 boo demee di màggal yi doo fa gis kantingu xasaay bu ñuy wecee xasaay parce que boobu commencé gu ñu mool mhm. sëriñ Abdoulaye radiyallahu anhu ku la wax lu mu jëkk tàmbalee liggéey sëriñ Abdoulaye lan la jëkk a tàmbalee liggéey ku la ko wax ne ko xasaay sëñ Tuubaa ak alxuraan mhm. loolu la jëkk jëkk bi mu ñëwee loolu la jëkk attaqué def ko ab liggéeyam loolu li may wax def ma leer nañ mhm. wooteel barrière bi wër jumaa ji wooteel nañ ko carrière mhm. carrière xam nga lu mu doon mooy ndokk fi ñu doon gasa xeeri jumaa ji mhm. wooteel nañ ko ab liggéey Baye Fall yi woon nañ leen ñu dem foofu gas xeer yi pour barrière jumaa ji mhm. loolu mooy woote bi si ñu bilaat di ko woote liggéey ndokk ndokk 7 kilomètres de Touba la di 9 kilomètres de Mbacké wala vice versa liggéey boobu boo fa demee ñax mi fii la daan yem dañu toog 15 jours di bay pour mm. fàkk fi nga xamante ni fi la ñuy gas a xeer yi nga xamante ni moo jëm Touba. Mm. bu ñu fàkkee ba pare gas ay fan door a génn xeer yi jal ko sëñ mu damante mii booba moo doon jiite carrière mm. dégg nga eh, jamono yooyu sëñ Ablaye Fall moo nekk xalifa ci li ñu fekk woon muy 71 woote nañu liggéey boobu 74 woote nañu liggéey lii tax ma lay nettali lii ndax day mel ni xaaral ñun moo doon mais 74 woote nañu liggéeyu ndokk encore lan moo taxoon ñu woote ko mm-hmm. bibliothèque wu Sëñ Abdu boobu. daaray kaamil daaray moo taxoon ñu woote ko. Mm-hmm. woote nañ ko am fa lu mat ñaari weer wala ñaari weer yi manqué tuuti. Mm-hmm. lépp génne xeer yi xeer yooyu nag bi mu génnee bu jëkk ca jamonoy mag ñi 1928. wax nañ leen ni mag ñi dañ naan ñoom xeer yi doxee diggante Mbàkke ndokk ak Touba. Euh, waaye bii yoon lañ juga kabe feeñ. Mm-hmm. indi fay oto oto yi di roñ xeer yi. xeer yi ñaari yooyu ñu dem yëpp. kenn yenuwul xeer wuti Touba mais dañoo dañ dañ ko roñ ci oto yu njuga kebe ay camion yu mu fa envoyé woon yàlla na yàlla yërëm si Touba doole leeram kon kàggu googu ñu ngi ko woote ci 74 74 lañ ko woote waaye si blaat bi mu ñëwee itam xaarul kàggu gi noppi ci biir këram la wut ay machine def ko fi commencé di móol xasida sëñ Touba ci biir kër gi sëñ Bousso mi nga xamante ni ca móolkat ya la woon nekkoon na ci ñi doon mool dama fàtte na mu tudd mosoon na ñëw Italie fekk ma fa mm-hmm. waaye man dafa am loo xamante ni euh, xam naa ko ci xam naa ko ci ndax ñun bi ñu doon màggale noonu comme jamono yi ma la wax nii xasaayit amul woon loo daan gis ci li wër jumaa ji ñuy jaay ay photo mm-hmm. photo sëñ diw photo sëñ diw photo sëñ diw te boobu itam photo ni mu amee benn kii bi amu ko woon daa gis kuy defar ab suweer dessiné ci sëñ bi mag bi dégg nga dessiné ci bi muy julli ci géej gi soweer yi vert vert lañ daan def dessiné ko ak peinture yooyu lañ daan jaay wala nga gis ku dessiné nganuk daaru salaam nga wane nit ku ñu rendi mu tëdd yu mel noonu <laughs> yooyu fa nekkoon di gis ci photo yi li tax ma lay wax yoon wi yeggul yàggul tam jamono yooyu mm-hmm. lenn loo xamante ni mm-hmm. génn na ci xaside yi mm-hmm. ñu xam ko lu dul xaside yii ma la wax ni ak yennet yi nga xam ni mag a koy yor muy ab dollam bu mu yor ci këram te mooluñu ko. Mhm. sëñ Blaat bi mu ñëwee dafa topp mag ñi fi nekkoon kenn ku si nekk sa dol ba nga yor wala sa jéem lang ba nga yor moo bokk ci sëñ bi. Mhm. mu jël ko fexe ba mool ko. Mhm. waaw beneen waxtaan la woo xamante ni waaye loolu rek laa ci mën a wax daal. wante eh, jamono yooyu. am na génn góor gu dëkkoon fii ñu wax sëñ Modou Mbodj. mos nañ fa am daayira mu xaadimatul xidma bi ñu paree ci ah, eh, jàng mi ba noppi mu di ñu leeral nii. muxaadimatul xitmaam 1940 la ko am ci année 40 yi. dama leen a bëgg a baaxee ni ma ko amee. booba muxaadimatul ma bi nu indi ñun di ko wecc di ko jàng ñoo ngi koy wecc ko ay téeméer ki ay nàngam. Mm. booba dans les années 78. Mm. mu daal ni ah sama muxaadimatul xitma. Mm-hmm. kenn ci doomu maam Cheikh Anta yi la dama xamul nag tur waxoon na ko. moo ko ni Modou Mbodj mu ne ko Mbàkke mu ne ko damaa déggoon ngay jàmbat mu xaalimatul xidma mu ne ko waaw mm. mu ne ko saakub kemba ngi nii soo ma ko bayalee ca tool ba mhm. ba borosaat ko ci ay saaku tegal ma ko fii ma jox la mu xaadimatul xidma bi nee na maa ngi ko def am siiw daal di dem bay tool ba nee na bay tool bi yëpp ba gerte gi ñor ñu bàcc ko def ko lépp ma def ko ci mhm. saaku indi ko leen ba jee mu ne mu xaadimatul ma baa ngi nii bind nañ ko ba pare jëlee ko ci ab ci originalu mbindam la ko jëlee mbindum loxo mbindum loxoom la ko sëñ ba jëlee ndax booba ñëpp amuñu ko mhm. xam nga bu fekkoon ñëpp am na ko mën naa dem àbb ko bindal ko bopp waaye booba pour nga jot ci pour bind ko c'est difficile mhm. léegi nee na mu daal ko ni mu xaadimatul xidma baa ngi nii mhm. di 79 80 la ba tasaaroo la commencé di tasaaroo euh, bari na nag ci bind yi yooyu dégg ñu ni dugg nañ ci te li ko ci dugal lu yomb a la parce que euh, lu man doon rek afalaa taxilun boo ci xelloo rek xam ko lan moo indi xasida goo xamante ni ñun doon nañu ko jàngal bi ñuy jàngal xasida gi xasida gi dañu cee bind xaala cheikhul xadim xaala cheikhul xadim mais xasida gi boo koy jàng da ngay gis tafakkar jamili fii ka is kunta nutfatan wala tansa taswiri li shaxsika fi l acha wa kun waafiqan bii fi umuurika kulliha sa ak fiika minha ma taxaafu wa ma taxsha wa salim ilaya al amra faalam bi annani sa unfizu ahkaami wa afalu ma asha xam nga loolu wax la yoo xamante ne wóor na leen sëñ bi wax bu doon ci jamono yi daanu kat ñu la sëñ bee ko waxul tax nga ni sëñ bi wax ko <laughs> ah. waaye ko wax sëñ bi waxu ko eh. dafa kar jamili fii ka is kunta nutfatan fàttalikul sama rafetal ci yow ni ma la melalee ba nga nekkee di aw lumbu nekk ci biiri faar bul fàtte loolu daal di wax ni bokkul waa si xan bii fi umari ko ku dexaa ah, sa mbir yépp nag ma ci doy naa la ci doy naa la ci doy man boo ko defee ma fegal la li ngay ragal ak li ngay tiit te nga jébbal ma mbir yi wasalam am amra jébbal ma mbir yi nag faxlam bi anna ni sa unfisu ahkaami wa afalu ma ashra nga xam ni man maay def li ma neex ah maay maay tëral samay àtte maay exécuter samay atte kon kay bàyyee ma mbiri wax jooju noonu. dañ ñu ko daan firal ni sëñ bi ko wax <laughs> loolu ci mën a topp <laughs> li cay topp mooy daaru kat rek wax loolu wax wax wax li may bañ a tudd moo cay topp. <laughs> sëñ Saliou Touré mos nañu wax ni wattandiku leen jàngu yi mu demoon fii ci Thiès fekk gars yi naa naan sëñ ah, yàlla sëñ yàlla mu ne wattandiku leen di ko wax mhm. wattandiku leen di ko wax bu ngeen ko dox du ngeen jariñ ci sëñ bi te su ngeen ko dee commencé waxee yéen yaa ngi commencé nit am yoon ci sëñ bi di ci waxta loolu mooy la xew nëgën gis nga ni mu ko waxee woon noonu la xewee nëgën mm-hmm. wante xasida googu bi ñu waxee loolu ni sëñ bee ko bind mm-hmm. ma jënd ibn téere ibnu ataillah ma ngi ko jënd Marseille ci rii tibaano di ko liir guddi di ko liir guddi ca Italie ba gis ci xasida gi hmm. ibnu ataillah lu mu gàtt gàtt mm-hmm. digganteem ak sëñ Tuubaa mat na 4 siècle ñeenti téeméeri at kon mag ñi fa la ñuy jëlee xasida ga binde ko lànkar ay bayit la dugal ko ci seeni bay ndare mhm. seen doom yi bu ñu ñëwee gisee dañuy defe ni bayti sëñ bi la mhm. loolu moo indi moo leen bayit nga gis ñi ñu taxawaalu ci biir xasaay yi te ñu naan sëñ bi bind ko rek ku mën a indi leneen mënu ko indi mhm. ko indi ndax mag ñi daaw ñu móol booba amuñu photocopie amuñu kii dañuy bind ak seen encre wala seen daa bu ñu ko bindee nag léegi dugal ko seen benn téere ndax dañuy yër téere nit yàlla yi di gis bayit yu leen ca neex kalaamun xadimun nangam nangam laa yomal sama waaw bayit yooyu noonu loolu rek la mhm. boo seetee jiite am nañ téere bu ñu wax ni ca la nekk jarabaatu dayra dayra bi waaw man loolu daf ma daan xaw a jaaxal comme maanaam mbind yi ñu dugal ci xaside yi waaw loolu ko indi nu ñu def ba nu ñu def ba dugal ko ci mag ñee ko bind ci seen lànkar dugal ko ci seen way ndare ah. seen doom bu ñëwee bu ñu ko fekkee dañ naan sañ de ko bind mhm. loolu dogg la mënu doon leneen mhm. waaw waaye jamono yooyu itam xaside yi noonu mu fi ñàkkoon noonu mu fi raare woon noonu la fi téere yi xam-xam yi raare woon irwa un nadib ak minanu baaxal xaadim la ñuy wax ci yoonu murid mm. irwa un nadib minanu baaxal xaadim mm. ñoom lañ ñooy téere yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jëkkoon nekk mm. nekk nañ fi ba année 80 irwa un nadib génnoon 80 81 82 parce que man maa ngi dem Italie 79 mm-hmm. non non 72 laa fa 92 laa fa dem alors ci 99 yi 2000 mm-hmm. mm-hmm. la ko sëñ ñoom sëñ Abibou Diop Dóora Mooni dama la ciy wax leen man bi ma koy am 1980 la lan moo tax ma am ko 1980 tase naa ma ak sëñ Abibou Diop kër sëñ Sall Touré sëñ Abibou xam sëñ Abibou waaw sëñ Mat Lamine Diop ak euh, mhm. ñu toog nii ma daal nuyoo ñoom ñu waxtaan ba ci ak ma ne ko sëñ Abibou man de dama ma na dem ma bind ko ndax daal dañoo bëgg di waxtaan sëñ bi daal te amuñu ay téere yu jëfandikoo yu yu yu wóor. Mhm. mu di ma ne ah ah man de sama bàyyi ko bind waaye man de aw ma ko. nii la ma wax sans bàyyi dañu ko bind waaye man dañu aw ma ko daal may wax sax fa téere ma jaaroon ba mu bindoo rek yooyu uh-huh. daal di man waaye yàlla la ko sëñ Tuubaa jox uh-huh. sëñ abibul mënumaa wax lu dul ku nangu ñaan la sëñ abibul jox uh-huh. bi ma ñëwee oustaz bi moo joxoon sama école fii ci quartier bi ci koñ bi looyeen oustaz bi boobu ba man damay dem STS di liggéey oustaz boobu ma fekk ko ci école bi mu taw ba sëwét nii mu ne ma kaañ dem kaw sara mooy présenté la samay waajur ndax bi ma joxee école téere bi ba léegi bi ma joxee école ba léegi présenté gu ma la kenn ma ne ko dama asma mu ni ma déedéet mënoo tey noo mën a def di nga dem mm-hmm. daa demay poñe ma ne ko jëlul poñe nañ dem mm-hmm. gis na kooku bi may yéegee ci biir néegam bi mu nee ñuun ci kawlal bi la daal di ubbi benn benn armoire mm-hmm. ni ma am ngay waaw na dim bu sëñ ma lem jóob dagana ma ne ko déedéet mu yëkkati ko jox ma su naa ko wax benn sëriñ sëñ baar mooy ma subhanallah yow de li ngay wax bu dee dëgg ma xam ne sëñ Tuubaa lay gëstuloo ma ne ko xam naa ko bu baax a baax téere jote naa ko nu nekk noonu loolu noonu xam nga loolu ba loolu du saayir xam nga loolu moom du saayir du sax man ma am baatin mais loolu du saayir am ngay raw na dimb sëñ ma Lamine Diop daga na ma ne ko déedéet mu ne mu ne ko yu ko jox ma muy mbindum bi bi ma ñëwee sëñ Modou Gaye lu ak sëñ Modou ba laa sas nekk genn wàll ñu bind ko dajale ko pour bañ ñàkk téere bi ma demee di ko joxaat téere bi fekk na oustaz bi sax bàyyi na école bi ba dem waaw loolu noonu man mii 2009 laa ko am. 2009 2009 bi ma demee Touba. waaw ci seexu naa doomu suñu kii sëñ Abibu la. waaw maa ngi moom ñoo bokkandoo woon. daaray got waaw. ma dee ni ko Irwaaw Nadim de amaguma ko mu yëkkati benn daal ma ko jox. Ah, ko te te te jamono yooyu ci lañ ko doo commencé mool nag. muy doog a sëñ Basiirou Diop. Uh-huh. mooy mbokkum sëñ Abib la nga a mm-hmm. Mm-hmm. ko mool mm-hmm. waaw moom moo ko mool indi ko Italie la mu commencé tasaaroo. waaw pour wax la ni la. min nañu baaxal xaadim itam bi mu fiy nekk. waxtaankat yi fi néewoon bu njëkk. Mm-hmm. dañuy tànn rek li nga xamante ni moo di xisas yi. Mm-hmm. di ko wax. Mm-hmm. waaye téere yi ñu war a référé woo booba pour liir ko pour ñu ñëw ci téere bi xam li sëñ Basiru di wax amu fi woon. booba téere yi ñu nga fi gis tabaxatul kubra eh, eh, mawaahibu laduniya eh, li ngay gis mu koy wax téere yooyu taal taalibul mat ay xuseeriya yooyu téere yooyu muy lim booba doo leen gis doo leen gis doo leen gis ndax booba téere yooyu dañu jafewoon mhm. gis naa ci mbindi sëñ Moustapha Bassirou muy sëñ bi bi muy bindi téere bi mel na lu baaxal xaatim mhm. booba euh, bi mu comme euh, defee demande ay téere Égypte mu ñëw ñëwee tubaab yi dañ ko woo di ko enquête lu tax lu muy doyee téere yi moom sëñ Bassirou mhm. nga xam nga xool kon téere ni mu jafe woon ak tubaab yi ni ñu mënoon a gàllankoore téere yi loolu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni ci ñàkkum téere la woon ci yoon wi ndax yoon wi booba day door a door yoon wi da doon door a door ndax sëñ bi jóge na fi lu yàgg Touba nekk ab dëkk bu tuutee tuuti tuuti nekk ab village. Mm-hmm. waaw bis ne balaa ñëwee nag ba yàq li dëkk bi nag la dëkk bi commencé di rëy nii. Mm-hmm. waaye booba nag bi ñu demee ba ci année quatre-vingt-dix yi nag. Mm-hmm. la mool yi commencé di génn. bu baax mool yi sax sëñ Ablaye fekk na mu mool a mool teg ci kaw gi waaye yi Italie yii moom. Euh, maa la mën a wax lan moo waral. xasaay yi am Italie ak nan la fa amee ndax je suis le premier murit bu jëkk a jël xalimaam toog Afrique ci bitim réew mi dafa bind xasida mhm. dem ba Italie toog fa di bind xasida ci Europe gépp mhm. loolu moom mën la ko suñ tubaab may moom mhm. maa jëkk bind xasaay suñ tubaab ci bitim réew loolu noonu comme li nga wax nii nag lu may wax sax nag di ko ndamoo wala dara damay xam ne rek lu sëñ bi bëgg la xañ na bi ñu demee itali quatre-vingt quatre-vingt-neuf góor gu ñu wax sëñ Mor Diagne dëkk ca Njaañ mhm. moo fa daan weccee ay xasida booba booba xasida yi bariwul mhm. eh, léegi xasida yooyu bi mu koy weccee eh, laa fa ñëw daal di commencé di bind di bind ay histoire yu gudd la boo ko waxee du xaj ci kii bi mhm. commencé di bind di dugg ci biir taalibe yi la tax nag sax mbir ma siiw dama faa ñëw fekk fa sëñ daam silla bu ndar maa ngi la wax barki leen ni premier conférencier yoon wi yoonu murit sëñ daam silla la sëriñ daam silla bu moo mun jëkk gis muy def ay waxtaan. Mm-hmm. dégg nga sëñ Xaadim Mbàkke ak sëñ Xayri Jaxate mm-hmm. ak sëñ euh, Ablaye Dieye Cheikh Ablaye Dieye moom fii la nekkoon cees Cheikh Ablaye Dieye mi daan wax Allahu Waahid voilà fii la nekkoon comme euh, action préfet yu mel noonu. Mm-hmm. daan ñëw ci ñun waa kër Cheikh ak Medina Fall yëpp daan dem ci moom. ñuy définir sëñ Touba ba caag mu créé journée culturelle Cheikh Amadou Bamba. waa kër Cheikh yi ñoo ko daan def. commencé di waxtaan nag di commencé di def ay conférence waaye ñi ñooy waxtaankat yu jëkk yi sëñ Dame Sylla nag ba mu ko fekkee Abidjan fekk sama xarit bi Mamadou Diouf bu mu ñëw fii dañuy ànd ak moom yenn saa yi ci jàng yi muy am mu ni ma ah kañ nga fi ñëw ma ne ko man kat maa ngi fi door a ñëw tey tey tey nii mu tasee Kazu Rajab mu ni ma su ma waxtaanee ba pare na nga jël kàddu gi nga waxtaan yow di nga fi baax booba fekk na duy naa ci sëñ Sall Touré waxtaan yoo xamante ni kenn mosu ko bi ma jëlee kàddu gi bi ma waxtaanee ñi nga xamante ni ay boroomi alal lañ dañ lay jox sa carte visite hmm. sëñ bi yow nag ma seet si noonu lañ loolu lañ mën kon daal dañuy yenn gan <laughs> nag ma jox sa carte visite jox sa carte visite nag ma seet si nag ma seet si ma ne baax na insha allah hmm. sama rakk bii fa newoon alaaji waat da nelaw yàlla ko yàlla yërëm ni ma sëñ bi ah waaw kon nooy def ma ne ko ah baal ma bind xasida yi rek hmm. baal ma bind xasida yi commencé kii la ma fa yóbboon yëpp ay mbir la yoo xam ne laa yaxum <laughs> wante ma daal di commencé di bind xasida yi bi ma ko defee ci saak wëndeelu ci marché bi di ko weccee su ma nee tëll ci atelier dañu naan sëñ bi yaa ngi waxtaan daayira jàll si toogal boo ñëwee xasida gi ñaata xasida gi de juróom-benn fukk ah sëñ bi juróom-benn fukk tuuti na am 1000 francs am ñaari téeméer noonu la nekkee woon ak mm. def fa lu ma juróom-benn weer dellu si fii bi ma dellu see mm. xaw fee tak tuuti delluwaat bi ma yeggee ñu ni sëñ Abdu Xaadir dañoo jox ay xasida mm-hmm. ni dem leen barkeelu ko ci seen daayira ak alxuraan bu ngeen demee kenn ku nekk na ci barkeelu def ko ca kàggu ngeen yor ci seen daayira mm-hmm. foo nekkoon ñoo ngi la wér ba léegi ma ñëw di commencé da gis ku la sëñ bi defaral ma téeméeri moyen bu sëñ bi defaral ma téeméeri gës bu sëñ bi defaral ma téeméeri mu xaadi mat rek noonu la ñu nekkee mm-hmm. nga xamante ni biir at moomee rek daanaka liggéey naa fa ëpp euh, ab ab ab million mm-hmm. te yàqul dara ji liggéeyu kër gi fii yàq euh, dépensé yooyu million liggéey naa ko fu mu ne ci banque mm-hmm. ñëpp topp ma nag xam nga jamono yooyu demal Italie demal Italie <laughs> demal Italie am na ci ku wax ci tëgg yi ni ma ah wax sëñ Paata Ja dama bañ a tudd yàlla ko yàlla yërëm ni ma ah indi li nga nar a demee Italie nga jox ma ko ma jëndal na ci taxi buy daw nga toog di nu jàngal ndax booba dama leen di jàngal guddi ñoom ñoom borom million yooyu noonu leen jàngal nga di nu jàngal su ko defee loolu dina doon loo xamante ni mooy gën ci ñun gën ci yow mm-hmm. Italie yàqu na ba pare waaw mu ne Italie yàqu na dara amu fa nangam waaye boobu tam <laughs> yàlla moo dogal dem gi rek mm-hmm. ma daal di dem ma demee laa commencé nag euh, di bind xasida yi Italie mm-hmm. li ma la doon wax mu laaj dégg làkk wi pour boo demee ci tubaab bi man ko wax ni ko damay muul xasida wan ko wax ko lan mooy xasida ak ku bind xasida yi ak xasida yi sama communauté ñoom dañ koy jàng saa su nekk parce que il faut nga convaincre ko pour mu jox la machine bi mm. dégg nga semaine bu nekk dinaa miil dinaa def ay six mille coupes yi wala dix mille coupes yi su ko defee tubaab bi moom day lox ndax <laughs> lool day xam ni xaalis bari la. da koy jaaxal waaw léegi ma ne ko nag lenn mooy am di nga ma jox këyit gu sonn di ma lebal ma dem jaay te ñëw mu ne ma loo bëgg ma defal la ko loolu yëpp yombul bi la fi ma mm. dëkkoon mbooleem machines yi fi nekk tubaab bi dañu ma ko doon jox ma di ko utiliser te waruñu ma ko jox ma naa dagg samay baaram te dañuy tëj seen atelier waaye dafa mel sëñ bi dal leen nopp wallahi alazim mm. ñu jàngal ma liggéey bi nu ñuy defaree dol nu ñuy defaree relire mm. dol bu ndaw bële ngay keroog bi ma ko jëkkee defar génne ko Brescia ci nganu sëñ Mourtada mhm. murid yi bi ñu ko tiimee dañuy wax alxuraan la mën leen déedéet xasaayit la mhm. bu ko ubbee bu ñu ko xoolee sëñ bi lii kañ la am ñaata nangam ñu daal di jël fay mhm. bi ma defee mu tuuti laa daal def mu agrandir mu rëy bi ma ko defee agrandir mu rëy tasantee na ñu def vol spécial bi nga xam ne moom la ñu jëkk def ak cant yi ñu commencé ko parce que cant yi am Italie ñun ñoo ko commencé ñun ñoo ko jëkk def ñi fa nekk ne suñuy yi doom lañ. Mm-hmm. ñun ñoo jëkk def cant yi Italie ñu ngi ko jëkkee dëkk bu ñu wax Modena. Mm-hmm. Bassirou Faye moo fa nekkoon taalibe Sëñ Bassirou la dem def ko Napoli def ko Rome organiser vol spécial bi mais daara ja mi ngi nekkoon Zingoña Bergamo mm-hmm. foofu lañ daan dajee guddi xasaay jiili ñag mii ngay gis ci ST RT ci TFM. ñu ñooñu ñëpp ñoo sosoon guddi yooyu. def fa cant yi ba mu tasaaroo léegi xale yi ñoo ko yor waaw kon fas waaw xasida yi yóbbu naa ko Allemagne mhm. maa ngi yi fii yëpp yóbbu naa ko Belgique Hollande mhm. dégg nga Espagne fu ne ànd nañu ak sëñ Moutala fu ne mhm. Cheikh daa Cheikh Moutala nafanallahu barakaati fii ànd ci saxaar sëñ bi toog nii toog nii nga bëgg a toog ci suuf mi ah, la ci kaw nii jàkkaarloo nii lu gàtt nii suñu yaram day daw doom suñ bi toogal fii tubaab yi rek a fi toog. Mm-hmm. toog leen yor kaamilam di jàng. dina toog jóge moom Montparnasse ca Paris. Mm-hmm. ba Marseille suba ba bëccëg suba ba takkusaan sëñ bi ni mu toog yor alxuraan ji du bouché. ku fi nekk di nga jóg di nga fu di nga def lu ne. Mm-hmm. ay moom du bouché alxuraan ji rek jàng. waaw loolu ay yeneen i waxtaan la. maanaam sëñ bi ànd naa moom ci avion. ànd naa moom ci car bus ànd ci saxaar. waaw si mu tëddaa moom alhamdulilah rabbil alamin loolu yëpp euh, ci liggéeyu Europe bi la waaye xasida yi moom. Mhm. loolu mooy li nga xamante ni moo ko tasaare. waaw ni ma def ba mu tasaaroo Europe loolu moom man la ko sëñ bi jëkk may ay mbir yu bari la yu ma ci mën a waxtaanee. Mhm. dinaa ci bind livre. Mhm. léegi nag bi ñu dem ba ci biir la Daara Zingoña commencé di mool. sëñ Moustapha Dieng. daaru mi nam xasaayit barki bu lañu koy jël déggante mu ne ma wallaay sëñ Magat mu ne ma saa bu ma tiimee xasida yi liggéey bi su ko tiimee sama xel dem ci yow. man ko alhamdulilah rabbi alamin ku ko gën a rafet loxo ci yoon wi amul macha allah ku ko gën liggéey ci yoon gis ngeen kaamilam bi bind gis ngeen xasidaam yi ni mu rafete mm-hmm. bis ne ñu ngi koy publicité kon loolu mooy li tasaare xasida yi mm-hmm. eh, kon noonu ma ko waxee bu ñu demee ba mag jóg. bëgg mhm. ko xasida ñu bayloo ko tool. kon xasida jafe woon na jafe woon ndax booba photocopie amul. Mhm. Eh, encadré gi kii sax danga naan bariwul woon daala mag ñi daan binde. Mhm. Eh, kon loolu mooy li nga xam ne moo ko tasaare. ci biir Sénégal moom sëñ Abdou moo tasaari xasida yi yëpp. bi mu ñëwee ba toog ci xilaafa yi la def gaare kaami googu këram mu def fa machine yi di muur xasida yi di ko tasaare. xasida yi commencé di génn ndànk-ndànk. loolu nag waxtaan la boo xamante ni dama koy bàyyi ci biir mur yi. dinañ ci dinañ ci jërëjëf euh, sëriñ Maguette Wade wallaay waxtaanu njariñ li mu am maanaam dafa doon loo xam ne comme ni ma ko wax sànq mm-hmm. maanaam doo gis ay téere yu koy bind mm-hmm. man boo xoolee jamono yi émission yi ma njëkk def ci jaalibatu buróor mm-hmm. ci xaside yi laa ko doon def mais dama doon toog di xalaat ni léegi xaside yi sëñ Alaaji di préciser ni suñ Tuubaa bind ko lan moo ko dugal ci ci ci biir yoon yi kon da ngay xam ni kon maanaam lii moo ko fa dugal ndax comme gis nga téere boobu ñuy wax nga xam ne ñu ne nee nañ sëñ ndukkum ndukkumaan sekk moo ko bind kindiirul alamin kindiirul alamin léegi la loolu tamit da nga doo mën doo mën a xalaat lan moo ko indi ci xaside yi bañ indi ba ci biir yoon wi waaw ba ci biir yoon wi bu jëkk itam waaw mooy téere bi fi newoon diiwaankat yi ci mbedd mi li may wax ni njëlbeenu yoon wi démb ak tey ñun bi ñu fi nekkee nekk xale ay diiwaankat ñoo doon jàngale yoon wi ci mbedd yi. téere mm-hmm. yooyu lañ doon jëfandikoo. waaw loolu la kindirul aalamiina jësbul murid. téere yooyu yëpp ñun neenal Cheikh Ibrahima ni moo ko. ba ci jësbul murid bindul bindu ko. bindu mm-hmm. ko ku mm-hmm. ñëw la nga. ko. waaw parce que benn rek na ma ci. faute grammaticale yi ne ci bi ne ci biir téere boobu kan moo ñemee wax ni loolu Cheikh Ibrahima moo ko bind. wallaahi. Ah, téere bi ci des muy muy nu mu tuddati Eh, kindeerul alamin kindeerul alamin sëñ Moustapha Lo moo ñu ci dimbali moo jekki-jekki wax ne hey bu ma déggati ku ni sëñ sëñ ko bind mhm. dégg nga ndax yàq nax wu yi ca nekk kenn xamul nu mu toll dégg nga tey itam mhm. eh, kindeeru du dara du baatub dara waaw yooyu yëpp tam eh, comme ni ma la wax nii rek li dugal xaside yi ci biir li dugal way xaside yi yàgg yee ci biir xaside yi mhm. moo dugal téere yi ci biir yoonu ñu di ko waxtaane ndax nit ñi tam bu ñu musaa dégg ci biir kindeerul alamin naan jundi wa jundi Ibrahima Fall li ana bàyyi yëlaamu yowmal xiyaamati bilaa malaam yaa nga soo ñoom bàyyi ñoom ay kii dañuy daal di sar xolle daanu gàngari ñëpp gii mm-hmm. amoon na suñu bàyyi bu baax bu nekk fi moom wulis wala daan yanu suñu bàyyi Mor Seye mm-hmm. wulis wala yanu ci këram indi ko jox ko diwaankat yi diwaankat yi li ñu war suñu mag ñi fii maa di taali <laughs> lu ne loolu nekk loolu nag moo nekkoon boo demee Touba màggal tam mm-hmm. jël meenu yoon wi tam boo demee loolu ngay gis boo demee ne gis ay diwaankat ñu samp seeni rajo lu ko teg fee aw dàll daalu sëñ bi mag baa ngi nii ñëw leen siyaar eh. da ngay ragal romb daal bi mu bu maam jaara maa ngi nii ñëw leen siyaar eh. dégg nga téere bi téere bi sëñ Tuubaa la moo ko bindoon ñëw ñu ko defee nit ñi ci loolu la ñu nekkoon xamuñu mm-hmm. téere yi génnul nit ñi ah. jànguñu waaye léegi nag nit ñi dañu jàng de mm, <laughs> duñu nangu yu bari waaw duñ ko nangu léegi njëlbeen yoon loolu moo amoon diwaankat yi ne ci foofu mm-hmm. ak jaaykat yi dégg nga maagal gi loolu ci nekkoon ah sëñ yow laan nag xam nga ni mu assainir dëkk ba mm-hmm. waaw ndax ah. eh, dañuy wax ni mu su ñëwee ci kaw suuf lii rek la fiy fekk jaamu xërëm bidan ak waxi kese yu àndul ak jëf waxi kese yu dul ànd ak jëf loolu moom moo moo ne ci yoon moo fi ne waxi kese yoo xamante ne du ànd ak jëf bon parce que man su ma tuddee sama bopp Maguette Wade xasaayit <laughs> te man lan moo war a tax ma tuddee sama bopp Maguette Wade <laughs> xaw ma ko Eh, bind ko taxul ma di ko tudd sama bopp eh. waaw foofu rek la xam ne yem daal te eh. loolu waxi kese rek la yoo am lu jëf ah kuy bëgg sëñ bi mën ngay dimbali mm-hmm. loolu ay kese la am na yu mel noonu yu bare bare bari waaw kon laaj na ndaw ñi ñu wëlbatiku mm-hmm. dellu si ci mag ñi ñi nga xam ne fekk woon nañu lu bare bare bare ci yoon wi mm-hmm. am na yoo xam ne mënee su ko wax mm-hmm. ci rajo nii jaxaran mm-hmm. dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy bàyyi noonu mais na ko waxtaane nag nga jële ci sa expérience yow xam ni kat ndekete lii lii ko waral lii lii ko waral waaye noo xam ne kenn du ko wax ci rajo ah ñi ma ëpp kàddu moom mën nañ koy waaye man du ma ko wax quoi waaye daal yoon wi moom Eh, yàggul mhm. barkeel la def lool wër àddina bi mais yàggagul noonu waaw mhm. ndax ñun bi ñu daan màggalee dañ daan dox 1960 année 60 yëpp dañuy doxee diggante Mbàkke ak Touba mhm. dox sunu yi mënuñoo yéeg ci oto yu mag yi ndax kenn du leen yëkkati leen yéegal dañuy dox diggante Mbàkke ak Touba boobu suñu maree naan taataayee ñu romb ci lañu suñu mag ñi wax naan leen lii lépp xéewal la dañuy naan ci ndox mi boobu boo yéegee ci taatu jumaa ji yow lii sa problème mooy ñu jëndal la palaatu rago yàpp boo ko lekkee da ngay féex ci sag màggal sag màggal neex na yow jëndal la palaatu bago wala dibi dégg nga bu ñu ko jëndalee si lépp neex na ndax dal yi booba ceeb a ko ne ceebu yàpp fay ne boo xamante ni bu guddee cere yi nekk ca dal yi guddi <laughs> boobu tufe amula ah. <laughs> boobu moom yi di méragul nii booba màggal yi noonu la woon daal Euh, alors boo demee tubaa it ndox mu ndox mu ndox mu xorom mi rek nga daan naan ndox mu metti mi <laughs> mu ci ngay naan ba ko da ngay si da ngay da ngay si booba it saxaar yi la ñuy dugg yendu ci ba ngoon ba timis mm. xëy fi dugg saxaar yi yendu ba timis boo romb gaar boo romb ñu sànni lay xeer nit ñi di leen sànni xeer di leen sànni xeer ñii di xaañu ba keroog ngeen di yegg Touba noonu mm-hmm. la demee woon waaw bu ko defee nag euh, loolu mooy li nga xamante ni bokk na ci njëlbeenu yoon wi mm-hmm. waaw euh, kon Euh, booba daal foofu la yoon wi toll woon. dëgg waaw nga daanaka ni nga taarix li nga indee ci xasida yi. Mhm. indiwaale na tamit taarixu yoon wi. indiwaale na taarixu yoon wi voilà daanaka benn la moo tax ma bindoo loolu al amsi wal yawm mhm. tey jii nag. xaside yi lépp génn na la ci ëpp génn na bien que sëñ bi nee na woon xawaytu fi lqurani sirran wajaba an la yazala dahra mutajaba amee naa ci alquran secret yoo xam ne bu mu génn nañ ko nëbb lu ci bari am na ci bari génn na ci mbedd mi mhm. waaw man bari na ci xaside yoo xam ne sax damay jort ni e, ñu ngi koy wax di ko bind ko muul te ci yooyee la jóge sax ci yooyee ñu dugal ci biir mbir yi rek wala kenn bind mhm. sëñ Mbàkke Fall mi ko laaj ni ko defe nga ni jës bul murit maam Cheikh bind daf ma ni leen daal laa gëm arabe littéraire laa jàng. Mhm. corrigé naa ko ba sonn mënuma corrigé faute grammaticale yi ci nekk. Mhm. yàq naxu yi mënuma koo corrigé. Mhm. waaye leen na maanaam ku bëgg ma maam Cheikh rek ni naa bindub téere dugal ko ci yoon wi ñu ne Cheikh Ibrahima ko bind wala ku ko bañ bind di saboté dugal ci yoon wi ni moo ko bind. waaye man sama nijaay Moustapha Fall Moustapha wax ci ab xisa rek. ni ma loolu ci gémmiñu Cheikh Ibrahima la génne woon. ne ah risqan kasiran wa xalaalan tayiban mm. ku ko jàng yaa ko jàng waaye jànguma ko loolu xisa bi da koy bañ a nettali mm. risqan kasiran wa xalaalan tayiban mm. ku ko jàng yaa ko jàng waaye jànguma ko mbir la woon ci saaku ñebbe ba woon ci gaaru Cees ba mu koy yóbbu ndànd yàgg ngeen ko dégg mm-hmm. wante ma ne ko risqan kasiran wa xalaalan tayi booba waxalaan tayiban yooyu arab yu tege la yu wér la mu ne ah, ma ko eh, kon war nga xam ne Cheikh Ibra lii muy wane nii mhm. du loo xamee nit ñi dañuy defee ni ay li ñu daan wax Cheikh Ibra Sëñ Tuubaa ñoo gis pays bi ñu wax ruqa mhm. pays ruqa sax moo amul mhm. fii la ñu gënee àdduna góorgóorlu ci seen yàlla ba am la ñu am dégg yooyu noonu xamoo ci dara da koy wax ay diwan kane ñoo ko doon wax pays bu ñuy wax ruqa fa la Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra gisee yow ku la ko wax ak foo gis ñu bind ko fa an man man man man mag moo la dëkk fii njàmbaarte ba xam li mu xam indi ko ci yoon wi mhm. lii muy wane jox loxo sa sëriñ fóon loxoom mhm. toog ci suuf mhm. dégg nga jox àddi sa sëriñ yooyu noonu maa ngi benn euh, borom xam-xam boo xamante ni jiitoo leen jiitoo na leen fi ñoom ñeen fukki at sëñ mag bay ñu ñooñu nitu yàlla ko jiitoo na leen fi ñeen fukki at ci biir téere bi may wax naan al muridu la yaduru cheikha wa illa bi hadiyatin walaw baada salaasati ayaamin alayhi an yuxti cheikhahu cheyan si ni ma ko mën a waxee noonu la ko waxee murit bi du siyaare sëriñam yor loxoy kese donte ñetti fan la fa sax buy ñëw na indaale waat dara donte sayu matt la na ko yanu indaale xam si moo demante daana wax bi kat nuyoo sëriñ ba loxoy kese donte socc la sax na ko yóbbu donte socc sax na ko yóbbu waaw xam nga kon loolu moom jiitu na leen fii li may faral di wax naan eh، baatu murit dafa am baatu marit am baatu muraat am te fi mu ne nii <laughs> muraat sax c'est très rare nga dégg ku ci wax pour pourtant <laughs> murit moo gën muraat moo gën murit fii ne ba ci biir mbooloo eh, déedéet loolu moom musul te <laughs> muraat moo gën murit muraat kooku yàlla moo ko namm murit bi moom moo namm yàlla mhm. waaye nag murit saa dex mooy mbir mi Mouride Sadio moom <laughs> moom benn affaire la moom. Mhm. boo demee ci bind Cheikh Abdou Khadir Jeylaani li may wax naan baatu Mouride sëñ bi fekk na ko fi sept siècle mhm. même baatu baatu baatu Mouride Sadio. Mhm. nekk na fi sept siècle sëñ bi door a ñëw. alors yooyu yëpp gëstu téere yi moo la ci mën a yóbbu. lan moo tax baatu Mouride ak Mouraat ak Marit ñett yooyu ni ñu niroo te bokkuñu. Mouraat eh, gis nga fi sëñ bi bind naan duunaka yaa Mahmoud. ma insha al jalil yashfi muridan aw muradan min ghalil kon xam nga am <laughs> muraad sëñ moom tudd na ko moom ñun ñoo ci yéegagul xaj na mhm. mahmoud jëlal lii ma lay bëgg a jox ci ay ndénkaane mhm. dina faral murid bi ak muraad bi seen mar ci yàlla mhm. maru xunduñ maru mett ci yàlla boo ko jëlee sa mar wi nga mar ci yàlla dina dañ muy murid bi muy muraad bi kon suñu tudd na baatu muraad nit ñoo ko wax parce que yu ci bari demuñ demuñ ci téere yi nga xamante ni ñooy téere yi ñu war a yir mm-hmm. refeer wu ca pour xool mbind sëñ bi sëñ moom ay tënk mm-hmm. kullun min al qawmi cheikhun alimun wa wareon mm-hmm. soo bëggee décrire nit ki lan mooy wareon ci yoqa wareon lan la lan mooy wareon nga bëgg ko décrire murid bi ko wax war a wax ni ko sëñ bi nee na war a sàmm sàmm da nga war a sàmm ba doo lekk lu araam ba doo def lu naxar yàlla nangam nangam bokk na ci waree boo duggee ci tiire imam Sha'rani yi nga xam ne gis na ne yëre yëre bu baax. boo ci duggee léegi <laughs> gis muy wax nit yàlla koo xamante ni sàmmonte woon na ba nga xamante ni daa ñàkk am ñagam jëndub suuf ñàkk ko. Mhm. def ci jur gi. def ci teen bi muy gas ci teen bi muy naanee. Mhm. dégg nga ginaar yi mu yar ak li muy lekk lépp ci biir tool bi la nekk. nga xam ni pour bañ lenn lu araam dugg ci biiram. benn bis la fa aw nag génne dem ci toolu jàmbur. jóge fa suuf indiwaat ko ci biir toolam bi mu saraxe tool bi yëpp ak nag yaag picc yi ca nekk yépp daal koy joxewaat ne du ci lekkati dara ndax lee mu jël ci toolu jàmbur indi ko fii mm-hmm. mënu koo distinguer ba génne ko ci tool bi waaw mm-hmm. nga gis benn saxaraani mi ngi wax ci téeréem mm-hmm. benn waay boo xamante ni toog ne fukki at juróom yu mu lekkul jën ñu laaj ko fukki at juróom nga bañ lekk jën lu ko waral mu ni ab soldaar jaar fii nitu buur bokk ma wax loolu ab nit nitu a jaar fii lekk ab sandwich am ba mu des mu sànni ko jën yi jën yi jëkkante ko alal joojee mu jóge ca nguur ga mm. ñu lekk ko loolu laay bañ lekk ci jën yi mu dugg ci sama biir fukki at ak juróom kii toog na ñiin fukki at yu mu lekkul yàpp ñu laaj ko lu tax lekkoo yàpp ci ñeen fukki at yi mm-hmm. mu ne ñeen fukki at yi li tax lekkuma yàpp damay dégg ne nag yi dëkk bi dañoo ruur tool yi dëkk bi lekk tooli jàmbur yi giiru nag googu laa bëgg ñu jeex takk ma door a commencé lekkaat yàpp mm. bi ci gën a yéeme nag mooy bisal xaafi mhm. sayduna cheikh mahamadul fadal dafa ne la barakat yi bi mu ajee màkka siyaare na ko bisral xaaf yi dégg nga suñu saaka ma wax naan sëñ sëñ ma bisral xaaf yi sëñ Malick Diang mhm. mi ngi naan siyaar nañu bisral xaaf yi yow ma laxaat yi xaw ma lan lan lan yi <laughs> moom mhm. rakkam jigéen moo dem ci Sidi Ahmad ibn Anbal Seydina Ahmad ibn di ko laaj ni ko mbedd lampi lamp mbedd mi day niit ci suñu biir kër ndax foofu mën naa faa toog di liggéey lumière booba ndax mën naa cee leerlu Seydina Ahmadou nan bal dafa daanu jël mm-hmm. daanu lampi mbedd mi ñëpp ko bokk mm-hmm. mun la cay leeral ci suma biir kër ndax mën naa caa toog di liggéey looloo ko daanil jël ni koy foo dëkk mu ne ko maa ngi dëkk kër bi sanal aaf mu ne ko waraa ci seen kër la yem fa la fekk baax <laughs> kon loolu Euh, noonu ngay jëlee yeneen téere yi li ma bëgg wax rek mooy mhm. dañuy def mu raafa jàng téere yooyu mhm. téere chanraani yeeg xusari mhm. yeeg abu taalil makki yooyu xam xisa yeeg yi sa biir junjin yi yëpp nga xam ko man ko leeral gis gis sañ sàmm ni mu téppe woon ni mu jéggi woon dayoo waaw xam nga euh, bu waxtaan sëñ bi <laughs> sëñ Sall xëy na ma dugg ci loolu waaye lii moom tawee si kanam mën naa ko tënk fii waaw loolu mooy li nga xamante ni mooy li ci nekk liñ ci liñ bi ñu ciy def rek mooy kon war nañoo xam ni kon hmm? xaside yi fii mu agsi nii fam fa mu commencé kon mu ko mu dafa jafe woon loolu fu jafe woon fu jafe la commencé fu woon kon yaakaar naa loolu dinañ dimbali ci fonkaat ko bu baax a baax a baax waaw waaw taxriif bi ci am nag mooy yàq gi ci am moom kon mel na la daloon yoon saa sam ci alxuraan kon dafa dal suñ tubaa ci xaside maanaam jéem a jéem a jéem a yàq alquran mais suñu borom li mu wax ni inna nax na dana dikk waaye naa loolu xaafidun ñun ñoo ko wàcc waaye ñun ñoo koy sàmm suñ bi tamit loolu da koo dal ci xasida yi mm-hmm. lu ci waaye dugal te bokku ci soobee yàlla borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci aw yoonam dinañ mm-hmm. dinañ ko jénne ah. leeral ko te xam nañ sabab bi tamit li dugal maanaam kon yàq yi dugal euh, xaside yam dañ koy dugal ci di ko jaxase mbindum sëriñ bi ñu naan sëñ beekoo bind ak yooyu am na ñoo xam te liñ ci jublu mooy jéem a yàqal sëñ bi hmm. am na ñoom ci jublu mooy seen xaside am siiw waaw sëñ bi ni mu siiwee tamit taarixu yoonu murit hmm. al euh, wal am si loolu hmm. xam nañ ko bokk na ci mooy li ci li ci gënoon a jafe mooy ñàkk tiir yi tiir yi ñàkkoon ndax yaakaar naa sëñ bi mu nekkee gànnaar mawaaxibul la dunya rek ah, yónnee woon yónnee woon na ko daanaka jafe woon na jafe na loolu mu am ko mhm. ah, kon kon mel na ni mhm. maanaam ñàkkum téere moom lu yàggale la ci ci ci ci ci réew mi mhm. ak waxtaankat yi nga xam ne dañ daan waxtaan di di di kii rek waaw wax lu leen neex loolu yàgg ci mbind <laughs> waaw sëñ bi ni ko eh. yàlla ni ko eh. sëñ bi ni ko yàlla ni ko mel ni nga fekke yow mel ni yow dangaa ngaa taxawoon loola ba muy am te gisoo loolu fu ko sëñ bind <laughs> la laa yujadu naa man yaqulu inna cheikh eh. qaala fi kitaabatihi xaale lii tabaraka wa taala eh, eh. wa xultu lahu wa xaale lii wa xultu lahu mm. gis ñu ko fenn bon yooyu mooy yi fi nekkoon diwaankat yi ñoo ko fi dugaloon te itam léegi réew mi nit ñi dañu jàng eh, am na ko mos a dégg laajte suñu neyeetoon sax kon maa ngi lay waa ji insisté waaw gis nga sëñ bi ni mu tëral laytul xadar mu ne ma xanaa moom déggul sama benn mbokkum taalib boo xam ne du ma xanaa waa ji eh. bi wax kaamaaxat rawaw la wax eh. kaamaaxat xakaw <laughs> kaamaaxat <laughs> xakaw waxee noppi dañ ni noonu lañ ko nettalee nag suñu neyeetoon ba nga liyee sëñ ba nga liyee eh. dafa mu cëmut gi dafa ne kaamaaxat xakaw niñ ko sax niñ ko nettalee léegi mu ne moom déggul loolu mm-hmm. mooy ki ñu doon wax ni da doon firi eh, malaktu ak malaktu rek. Ah. li malaktu afdal basar sëñ bi nee na moom naa yónni. <laughs> loolu yëpp xam nga. te itam ay nit ñu déer fit doon ñoo xamante ni. loolu ah. mooy li ne ci problème yi day gis nit ku déer eh. fit. Eh. la yumayyiz bayna al faa'il wal maf'ul mën a jël micro toog ci biir ñi di waxtaan. Mm-hmm. di wax te nit ñi koy fett su muy wax lu ko neex ah. di wax loo xamante ni dëppawul ak lu ñu mën a dégg mm-hmm. su ko defee ñi nga xamante ni dañoo bëgg a yàpp yoon wi ñoom mm-hmm. daal di jóg waaw te loolu dama ci tudd kenn waaye xam ngeen ni gis ngeen ni mu tasaaroo ci internet bi ñun mm-hmm. ñëpp ay lire internet bi gis nañu la ci nekk waaw ah. kon loolu mooy li nga xamante ni euh, mën nañ ko ci jàpp ah. ndax dafay laaj waaw